salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare def ngeen lu baax xalaat ndaje moo xam ne dangeen ñëw muy xalaat ji indi ndaje mi ngeen ñëw di siyaare sant nañ leen bu baax lii ni mu amee lii ni mu jógee ci man jëm ci sëñ Sidi jëm ci Abdou Lahad Ka mi fa tabaarakallaahu noonu rek la mbir nag mbir day am tàmbali ñu xam ne ci tàmbali rek la nekk waaye day yen bu rëy nag boo xam ne moom la ñu fi sëriñ bi bàyyee. nekkal ko fi nag mooy nekkal ko ci ni ko bëggee. nekkee ci ni bu nekkee ci nim ko bëggee. sun lépp yéen. lu ca wàññiku nag. di suñu wàññil rek. kon nag gannaaw nekkin wi. lu ci yées ci ni ko sëriñ bi bëggee. suñu wàññil dong lay doon. di suñu wàññinu tey di suñu wàññinu ëllëg. kon nag war na noo gën a xam loolu. te gën cee def sunu ite. liggéey bu la. liggéey bu rëy la. kon la des. kon kon kenn ku ne ci nun. ci nun. ba ci mboolem taalib yi aju ci sëriñ bi nu gën a xam ni ko sëriñ bi bëggee ni mu ko bëggee sëriñ bi ni mu ko bëggee mu ni kon nii mu doxee nii mu doxee la ko bëggee noonu mu doxee rek lañ ko bëggee sëriñ bi. moom bi mu ñëwee. moom bi mu ñëwee. boolewu feeg dara borom. boolewu feeg dara ak borom. fiñ ko gisee ba fiñ ko noppee gis. gannaaw nag noo am sunu borom boole noo am tawféex yi sunu borom boole nag moom. waruñoo wax dara ci lim nu fi bàyyi kon lim nu fi bàyyeel ak taalibe rek la wax naa ne sëriñ bi amul mbokk wax na moom amul bokk taalibe rek la am kon kon war na noo góorgóorlu bu baax fas naa dooni taalibe rek la dëkk bi dëkk bi dafa mel ni moo jiitu ci lim nu bàyyeel dafa mel ni moo jiitu ci lim nu bàyyeel Diblu Bayel yaatu na lool waaye dëkk bi moo ci jiitu waaye dëkk bi moo ci jiitu Diblu Bayel bari na yaatu na lool waaye dëkk bi moo ci jiitu kon nun ñu nekk ci dëkk bi kon nag nun ñu dëkk ci dëkk bi nu am tawfeexi dëkk bi nu am tawféexi dëkk fi ci wetu sëriñ bi nekkal ko fi war na noo gën a xam suñu bopp bu baax te xam ne sëriñ bi noonu ma ko waxee woon boolewul ak dara ak borom loolu moo tax bi muy ñëw fii ci dëkk bi àndul kenn moo boroom rekk ànd. nekk ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk. ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk. sunu borom won ko fi mu ko bëggee. ba sunu boroom won ko fi mu ko bëggee. gannaaw ba la door a feeñ. gannaaw ba door a feeñ. kon nag sunu kon nag sunu warteef. luñ mën a gën a xam ci sëriñ bi ñu xam ñu xam. luñ mën a gën a xam ci sëriñ bi ñu koo xam. jéem koo nekkal ci ni ko bëggee. jéem koo nekkal ci ni ko bëggee. kenn ku ne nun kenn ku ne ci nun ab dongo dong la war def. ab dongo ab war a def boppam. kenn ku ne ab dongo dong la war a def boppam. muy man muy man muy keneen ab dongo dong la war a def boppam. rawatina rawatina nag ci dëkk bi. kon gannaaw nga xam ne. kon mbooloo moom. mbooloo moom. bu dajee. fekk ñu amub liggéey. fekk ñu amab liggéey. liggéey booba def caa war a def itte bu baax. liggéey boobee def caa war des caa war a def itte bu baax. liggéeyu saahir bi nag. liggéeyu saahir bi nag. moom itam. am a am taxawaay bu saayir bi nag dafa war am taxawaay bu baax. taxawaay bu mat sëkk. liggéey boobu. kon liggéey boobu. mënut a ñàkk ñu ko jiite. mënut a ñàkk ñu ko jiite. kon yàlla dogal na ci jamono jii nu toll. kon lañ ko dénk. ngeen xam nag li ngeen nekk. ngeen xam nag li ngeen nekk. liñ leen dénk nag ngeen xam ko. Hmm. lañuy jëkk xam moo di xam dëkk bi. lañuy ñuy jëkk xam nag moo di dëkk bi. dëgg la nekk. dëgg la dëkk bi ci biir senegal la nekk. am na loo xam ne ñun ñëpp ñu nekk ci biir Sénégal noo ko bokk. xanaa da ci am loo xam ne. waaye da ci am loo xam ne. ñun sunu liggéey bopp la. loo xam ne nag sunu liggéey bopp la. Ah, xam ki ñuy liggéeyal. liggéey boobu du dara lu dul nag xam ki ñuy liggéeyal. xam nan koy liggéeyal. xam nan lañ koy liggéeyale lu mën a xew lu mën a xew lim nu woon rek lan mën a gis lim nu woon rek lan mën a gis moom sëriñ bi moo xam lu jëm la moo xam loolu adduna la moo xam ëllëg la moo xam ëllëg kon moom sëriñ bi ak bëggam kenn rek kon sëriñ bi moom ak bëggam genn képp la muy boroomam rek ak yonent bi mu ko digal kon gannaaw yéen la yàlla dogal ci jamono ji nu gannaaw yéen yéen dogal ci jamono ji nu toll. yéen lañ dénk liggéey bi. ngeen gën a xam bu baax liñ leen dénk mooy lan ak nan lañ koy yore ak nan lañ koy sàmmee weesuwul kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun mu xam ne ab dong dong la ndigal rek la war a wéy ndigal rek la war a wéyee gi ndigal googu doon ndigal day doon ndigalal sëriñ bi rek. te sëriñ bi digalu digal digalu lu dul lu dul. sëriñ bi digalu nu lu dul. suñu yitte yàlla. suñu yitte na yàlla. sëriñ bi digalu nu lu dul suñu yitte na yàlla. ci biir loolu. ci loolu. naam bool bool booloo gi gannaaw booloo gi mënut a ñàkk te am na loo xam ne mu ne su koo ñàkk sàmm ak am na loo xam ne mu ne su koo ñàkk sàmm faw mu am ñuñ ko sàmmuloo faw ñu am ñuñ ko sàmmuloo ñoo ñoo gën a war a xam ñoo gën a war a xam seen bopp bu baax a baax na sëñ bi boolewul dara boromam xam ne boolewul ak sëriñ bi boolewul ak dara boroom kon waruñu ko boole kon waruñu ko boole dara dëgg la lu nu dëkk dëkk ak Sénégal dëgg la lu nu dëkk dëkk ak senegal am na loo xam ne am na loo xam ne sunu liggéey bopp la sunu liggéey bopp la am na loo xam ne bu waree Sénégal itam. am na loo xam ne bu waree Sénégal bokk ci wartif. danay bokk danay danay bokk ca wartif ya. waaye nag doxin bi waaye nag doxin wi. dana wuute dana wuute. fii ku fi nekk. fii ku fi nekk. ab dong rek nga war a def ab nga war a def sa bopp. muy man muy keneen. muy man muy keneen nag. lu fi nit di lu fi war a bàyyi nit. kon lu fi war a bàyyi nit. muy sàkku ngërëmal yàlla rek. muy sàkku yàlla rek. lu fi war a bàyyi nit rek. lu fi war a bàyyi nit rek. sàkku ngërëmal yàlla moom moom la war yàlla loolee moom la war a doon. ndax sëriñ bi boolewul dara ak borom. kon liggéeyam bii. kon liggéeyam bii. ku mu ko dénk ku ko dénk. war ngaa xam li mu bëgg. bu nu góorgóorloo nag. bu nu góorgóorloo nag. ba bañ a def sunu bopp lenn. bu ba bañ def suñu bopp lenn. lu dul ay dongo. lu liggéey. yu war a liggéey. juum nan bu metti. lu nu def suñu bopp lu dul ay dong yu war a liggéey. juum nu bu metti liggéey bi nag liñ ci mën a gis. liggéey bi nag liñ ci mën a gis. mooy nii mu demee rek mooy nii mu Sénégal Sénégal. bi am na nu ñuy doxe loolu dem dox na nag ba agsi ci nun mënuñu caa ñàkk ànd. mënuñu waaye waaye nag nun waaye nag nun. am na sunu doxinu bopp. waaye nu nun am na sunu doxinu bopp. xam dara. tàmbali ngeen cee xam dara. ci ndax yëngu-yëngu yi nu weesu. ni biir Sénégal doxe ni biir Sénégal doxee. wuute naag naag doxeen wii lool. te taxu a tàggoo. te taxu a tàggoo te taxu leen a mm-hmm. ñoog waa Sénégal. loolu nag da ngeen ko war a xam bu baax. loolu nag da ngeen ko war a xam bu baax. dëgg la tawfeex la ci borom dogal nga dëkk ci dëkk bi. ndax tawfeex la ci sunu borom dogal nga dëkk ci biir dëkk bi. waaw tawfeex la itam ci koo xam ne boole nañ la ci ñi ñuy liggéeyloo. tawfeex la it ci képp koo xam ne boole nañ la ci ñi ñuy liggéeyloo. kon góorgóorlu nañ góorgóorlu bu baax. mboolem ñi fi nekk. mboolem ñi fi nekk. ak ni ñu wuutee. ak ni ñu wuutee. waaye nag am na ñu ca jiitu. waaye am na ñu ca jiitu. ñoom ñëpp ñoom ñëpp nag. dañuy góorgóorlu. dañuy góorgóorlu. xam li nu fi bàyyi. xam li nu fi xam li fi indi. xam li nu fi bàyyi. sëñ bi bi muy ñëw fi mu dong nga àndoon. bi bi muy ñëw fii moom dong nga àndoon. yàlla rek la ndigal yàlla wut. ndigal yàlla képp la ko suñu borom li mu doon wut. dëgg la bi ko sunu borom wone li mu doon wut. am na ñu fi dal di fekk. am na ñu ko fi daal di fekk. di dolli ko. di dolli ko. di doon mbooloo. di doon mbooloo. ba doon mbooloo. ba doon mbooloo. ñooñu seeni seeni sët fi nekk. ñooñee seeni ñoo fi nekk. ñaandoon ak moom ñaandoon moom. dara andiwu leen woon ci moom. dara andiwu leen woon ci moom. lu defaru rek. lu defaru rek. ba mën a nekk nitug yàlla. ba mën a nekk nitug yàlla. loolu rek loolu rek moo leen andi woon ci moom. fekk na sëriñ bi moom ci fekk sëriñ bi ci loolu dong la ne. ba loolu amee. dolliku loole di dolliku ba agsi fii ba si fii kon loola nga xam ne moo ñi fi ñi fi ñëw ñi ko fekk la leen fi indi woon kon ñi ko fi fekk si woon li leen fi indi woon fekk fi sëriñ bi fekk fi sëriñ bi fekk ko ci léegi ci lim nekk fekk ko ci lim nekk loolu noonu nun loolu lan war a xool nun loolu lan war a xool di ko fàttaliku ko xam ne amuñu benn wartiif xam ne amuñu benn wartiif nekk ca nekk ca loole ñooñee lañ nekkoon rek noonu ñii ci lañ war a nekk ku fi nekk ku fi nekk dogal nag am nañu fi nekk ñëpp ñëpp fi yàlla dogal nag am nañu fi nekk ñëpp a ngi fi dëkk bi ñëpp a ngi fi waaye kenn ku ne waaye kenn ku ne nag nekkin woowu ma wax. nekkin woowu wax. war na la ñi fi nekk wuute nañu lool waaye nekkin woowu ma wax da ñëpp rek war nekk. loolu mooy nan fi nekk nii ko ni ko sëriñ mooy nekkee fi ni ko sëriñ bi bëggee woon rek. ku fi nekkee noonu. ku fi nekkee noonu. tawfeex ji nga am day dolli ko rek. tawfeex ji nga am day dolli ko rek. lii ñu leen dénk nag. lii ñu leen dénk nag. ngeen li ngeen war a jëkk a xam. li ngeen war a jëkk a xam. waaye ñun ñëpp nag dañ ko war a xam. waaye nag ñun ñëpp a ko war a xam. muy dëkk bi daara la Touba daara la. xam ne Touba nag daara la. daara buñ ko waxee. daara buñ ko waxee. xam nan lan luy daara. xam nan lan mooy daara. kon nag nanu xam ne. kon nag nanu xam ne. ci daara la ñu nekk. nanu xam ne ci daara la ñu nekk. Touba daara la. bu doonee daara ba noppi itam. bu doonee daara ba noppi nag. faw aw nit aw amu nit ah, am nit am mbooloo. mbooloo moomu nag. mbooloo moomu nag. il faut ñu xo ñu jóg seen bopp ñu jóg seen bopp. ñu jóg ci seen bopp. sàmm seen bopp. sàmm seen bopp. war a yëngatu. war a yëngatu. war seet na ñuy defal na ñuy jagale seen mbir. na war a yëngatu war a seet nan la ñuy jagale seen mbir. lu ñu wuute wuute ak bokkal réew mi. lu ñu wuute wuute ak ñiñ bokkal réew mi. du tee nag. du tee nag. ñu jugal seen bopp. ñu jugal seen bopp. seet nañu yéwénale seen mbir. seet nañuy yéwénale seen mbir. bu ci amee loo xam ne ñoo réew mi ku bokk itam. bu fekkee am na loo xam ne ñoo réew mi ku bokk itam. am na loo xam ne ñoom seen xaas la. am na loo xam ne seen xaas la seen mbirum bopp la. loolu mooy gis ngeen ni mu doxee rek. loolu gis ngeen ni mu doxee rek. baag si si fii. li fi sëñ bi bàyyi woon. li fi sëñ bàyyi woon. ñi fi bi ñi bàyyi woon. naka jekk naka jekk. am na nu ñuy doxee. am na nu ñuy doxe waaw nag ñu wuuteeg doxiinu réew mi loolu am ngeen lu ngeen ci xam kon ginnaaw mun mbooloo mi mënuñoo ñàkk ànd ci mbir gannaaw mbooloo mi mënuñoo ñàkk ànd ci mbir seet na muy na muy seet na muy yéwéne ñu defee ko noonu. ñu defee ko noonu. kon noonu rek la. kon noonu rek la. li ci am solo rek. li ci am solo rek. ñu xam. ñu xam. li leen fi bàyyi. li leen fi bàyyi. xam li nu fi indi xam li nu fi indi xam lu leen fi bàyyi. te du dara te du dara. lu dul nekkal sëñ bi ni mu ko bëggee. lu dul nekkal sëñ bi ni mu ko bëggee rek. sëñ bi dafa won gannaaw adduna. sëñ bi daa won gannaaw adduna. jublu boromam jublu kon ku koy wuyoo. kon ku koy wuyoo. nga won gannaaw adduna. faaw nga won gannaaw adduna. kuy wuyoo sëriñ bi faaw nga won gannaaw adduna. sa lépp. sa lépp. da koy def ci wut sëriñ bi. da koy def ci wut sëriñ bi. sa lépp da koy def rek ci wut sëriñ bi. bi dafa waroon gannaaw adduna. gannaaw sëriñ bi dafa waroon ganaaw adduna. ñi ko topp ñëpp. ñi ko topp. loolu mooy seen warteef. li ko ñi ko topp ñëpp loolu mooy seen warteef. wan gannaaw adduna. wan te a am te cër bi la yàlla sédd ci adduna. wan gannaaw adduna teewul a am cër bi la yàlla sédd ci adduna wan gannaaw adduna nga am sa cër bi yàlla sédd ci adduna. loolu kon li nga xam ne yàlla dogal na ko nu wuuteeg ñi bokkal réew mi. li nga xam ne yàlla dogal na ko ñu wuuteeg ñi bokkal réew mi. dañ ko war a jëfee bu baax. loolu dañ ko war a jëfee bu baax. ku fi nekk. ku fi nekk. xam ne loolu nga fi war a nekk. xam ne loolu nga fi war a nekkee. nekkin woowu. nekkin woowu. dafa am barke. dafa am barke. nekkin woowu sëriñ bi bëgg ku fi nekkee nekkin woo barke. Mhm. Hmm. kon kenn waru fee nekk wenn kenn waru fee nekk wudut nekkin woowu rek doxinu adduna doxinu ko ànd waaye bokkuñu lu ñu bëgg bokkuñu it lu ñuy wut kon ku kon ku nekk ci dëkk bi ngaa seet war nga seet sa bopp. seet sa jëmmi bopp seet sa sew nekkin sew nekkin. ak loo a nekk. ak loo mën a nekk. di ci yëngutu nga ca nga jiital ca. nekk ci li neex sëriñ bi. nekk ci li neex sëriñ bi. loo mën di yëngutu rek. na nga ca jiital loolu dëkk bi nag dëkk bi nag li nga xam ne mënees na cee teg bët li nga xam ne mënees na cee teg bët mooy barkeb sëñ Tuubaa bi fi ko yàlla defal mooy barkeb sëñ Tuubaa bi ko yàlla defal tem nekk fi lool lépp nag. loolu lépp nag. dafa am lu ko doole kàttan doole ju loolu lépp nag dafa am doole ju ko yor. mel ne lu mel ni nguur. lu mel ni nguur. nguur doole rek ko yor nguur doole rek ko yor lii fi sëriñ bi bàyyil nag lii fi sëriñ bi bàyyil nag mooy barke mooy dafa xaw a niroog nguur nag waaye nag dafa xaw a niroog nguur waaye aka ñëw wuute wuute nañ lool nguur ci doole lay jóge nguur ci doole lay jóge ci ngërëmal yàlla lay jóge barke ci ngërëmal yàlla lay jóge barke nag moo fi nekk barke ku fi nekk ku fi nekk nekkal nekkal fi sëriñ bi nekkal fi sëriñ ci jil sa wàll nag bokkul ak wërsëg barke nag bokkut wërsëg. <laughs> wërsëg moom ñëpp ko am kenn ku ne yàlla wërsëgal. wërsëg moom ñëpp ko am kenn ku ak la la yàlla wërsëgal. mbooloo mépp ko bokk. Mm. kenn ku am nga sa wërsëg wala yàlla. ku defal. waaye fii moom. waaye ci ndigal te yàlla tax te tax. wéy ndigal te yàlla tax. moom rek lañ fi mën a nekk. moom lañ fi war a nekkee ci ndigal te yàlla tax moom rek lañ fi war a nekkee. kon xam ne am na lu nu wore ak ñi nu bokkal réew mi. kon xam nañ ne am na lu nu wore ak li ñi nu bokkal réew mi. ni ñuy doxee du bokk ak ni ñu war a ni ñuy doxee doxee du ñu bokk ak ni ñu nun ni ñuy war a doxee nun. nun amul wenn doxin. nun amul wenn doxin. wutu sëriñ bi bi rek. kon lim nu fi bàyyil. comme lim nu muy barke bu nu bokk ñun ñëpp. muy barke bu nu bokk ñun ñëpp. ak ak ak ak sunuy nag. ak sunuy jëmm nag. sunuy jëmm sunuy jëmm. nu bokk barke boobu. nu bokk barke boobu. loolu. ngërëmal ci lay jógee. loolu ci ngërëmal yàlla rek lay jógee. barke barke boo bi boo muy barkeb sëriñ bi nga xam ne yàlla ko jox. kon ku fi nekk. kon ku fi nekk. war ngaa xam loolu. war ngaa xam loolu. ku ko xam ku ko xam itam. te xam ne barke boobu. te xam ne barke boobu. day wéy di wéy. day wéy di wéy. di gën a yaatu di gën a yaatu. kon ku fi nekk. kon ku fi ne. war ngaa doyloo sëriñ bi war ngaa doyloo sëriñ bi. sant yàlla ci war ngaa tawfeex ji nga am. war ngaa sant yàlla ci tawfeex ji nga am. boole gi la sunu borom ci sëriñ bi. ji nga am boole gi la boole ci sëriñ bi. saw gisin. saw gisin. warta doon doon dara. lu dul xam sa wartif. lu xam sa fii ku fi nekk daal. fii daal ku fi nekk daal. nitu yàlla rek nga war yàlla dong nga war a doon. waaw fii ku fi nekk nit yàlla rek nga war a doon. ndax loolu rek la ndax loolu moo fi indi woon sëñ bi moo fi indi woon ñi ànd ak moom. jombale suñu bopp loolu nag buñ ko jombale suñu bopp. buñ awul woowa yoon rek. buñ awul yoon rek. tegg nañu yoon wa tegg nañu yoon wa ci ku teggi yoon wa nag ku teggi yoon wa nag. réer rek kon yàlla nu yàlla musal. ye kon amin amin li ci am solo daal ñu xam ne. li ci am solo daal mooy ñu xam ne. taalibe yi sëriñ bi lanu. ñu xam ne ñun taalibe yi sëriñ kon. wóoruloo doxi doxin wu bokkul ak li ñu war dox doxin wu wu bokkut bi nga xam ne même lan war a doxee. ni ma ko jëkkee wax rek. ni ma ko jëkkee woon rek. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun ab dong rek la war a war a doon. baat boobu ñu bàyyi ko xel mi ngi koy baamuwaat rek. du tee nag nu nu. dox nu dox du tax du tee nag nu dox doxinu àdduna waaye bu xamee ne nun la waaye bu nun bu ñu xamee ne Tuubaa gii daara la te ay dong war a doon tey dong dong lañ war a doon bu ñu ko xamee te def ci suñu itte jëpp bu xamee def ci suñu itte jëpp dëkk bi dana mel ni sëñ bëgg kon dëkk bi dana mel ni sëñ bëgg danañu melit na nit yàlla ya kon danañu melit na nit yàlla ya ku fi nekk itam ku fi nekk itam te loolu gisoo ko te loolu gisoo ko melo woowu melo woo ko melo woowu melo woo ko doxin woowu doxee woo ko doxin woowu doxee woo ko dox di dox doxin waa nañu nañu sàkk nañuy wute adduna di doxee doxin wa ñuy wute adduna rek nga nekkee nga nekkee ko fi yàgg yàgg tuumuranke rek la yàgg yàgg ak tuumuranke rek la leen di mu ci yàlla musal. nu xam loolu bu baax a baax. nan ko xam loolu bu baax a baax. xam ne daara la nekk. xam ne daara la nekk. nan dooni dongo. dongo mooy melow taalibi rek. dongo rek. dañoo xaw a wuute. <laughs> moom. <laughs> taalibi moom. mooy kiy sakkoo nekk ci lu neex mooy kii sàkkoo nekk ci lu neex yàlla taalibe bi mooy kii sàkkoo nekk ci lu neex lu neex yàlla di sàkku ngërëmam kooku mooy taalibe lay liggéeyam lay liggéeyam moom taalibe bi mooy def ndigal bàyyi tere def lu baax li yàlla bëgg baax li yàlla bëgg daw li yàlla daw bañ li yàlla bañ lépp nga di ko def te yàlla tax. nga di ko def te yàlla tax. loolu mooy melaw taalibe. loolu mooy melaw taalibe. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. ndax melaw yombul. ndax nag ak taalibe yombul. taalibe yombul. taalibe yombul. yombul ak taalibe yombul. Hmm. te ci la njëriñ li waaye nag ci la njëriñ li nekk. njëriñal adduna ak alaxira. ak alaxira. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. dooni taalibe dooni ko defee rek buñ ko defee rek. suñ lépp yomb. suñ lépp yomb. doxinu adduna adduna li muy jafe-jafe li muy bari bari ay pakk. doxinu adduna li muy jafe-jafe ak lim bari bari ay pakk. bari bari bari ay gàllankoor. lim bari bari ay gàllankoor. buñ góorgóorlu ci loolu. buñ góorgóorlu ci loolu. Eh, yoon ma wi leer naññ. yoon wi leer naññ. doo gis kenn benn gàllankoor. doo benn gàllankoor. suñ mbir it day yéwén. suñ mbir day yéwén. séq. li ñu séq. gën a yéwén day gën a yéwén. suñu dox yi di gën a yomb. suñu dox yi di gën a yomb. suñu barke it muy barkeb sëriñ bi. suñu muy barkeb sëriñ bi. kenn ku ne da ca am wàll. ci nekk ci loolu. ku ci nekk ci loolu. barke boobu day gën a jëm kanam rek. barke boobu day gën a jëm kanam rek. yow ci sa bopp ngay gën di defaru. yow ci sa bopp ngay gën di defaru. Hmm. barke boobu di gën di yokku. barke boobu di gën di yokku. loolu mooy. Hmm. njëriñal taalibe. loolu mooy njëriñal taalibe. gisaay si rek la. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. ëllëg la jëm. ëllëg la jëm. te li nu sëriñ bi bàyyil. li nu sëriñ bi bàyyil. bu noonu. bu nekkee noonu. di sant. di leen sant. di leen gërëm di leen gërëm. kenn ku ci yéen. kenn ci yéen. lam nekkoon. nekkoon. ba lii fekk ko ci. loolu dara la. loolu dara la. leen ci sant bu baax noo leen ciy sant bu baax. leen gërëm ci itti jooju di leen waaye nag. ngeen xam ne nag. lay sunu warteef. mooy doon nit yàlla. ya ya ya ya doxee bu ñu doonee taalibe ya doxee ak taalibe. dana nekk nit yàlla. loolu rek la sëñ bëgg ci loolu nag la sëñ bi bëgg ci ñun. kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax. liggéey bi woyoful. na nag liggéey bi woyoful. waaye man ngeen cee defaru. waaye mënees na cee defaru. waaye mënees na cee yàqule it ñu ci yàlla musal kon ngeen góorgóorlu lu baax fii ngeen toll fii ngeen toll ba fii ngeen toll ba fii ngeen toll ngeen gis seen bopp ne ak yokkute am na ci ngeen gis ne am ngeen ak yokkute ak yokkute am na ci yéen loolu nag la leen koy may ngeen góorgóorlu ba def itte ci liggéey bi di ko rafetal seen kem kattan ndax loolu ndax loolu la cay jógee ci njëriñ la cay jógee ci njëriñ mbooloo mépp ko bokk kon ngeen góorgóorlu bu baax ci am solo rek li ci am solo rek dëkk bi ku fi nekk. dëkk bi ku fi nekk. xam na fi ni nga fi war a nekkee. loolu nag. loolu nag. kenn du leen ci war a jiitu. nag kenn du leen ci war a jiitu. nan góorgóorlu lu baax a baax. fas yéene nekkee fi ni ñu fi war a nekkee. di taalibe di taalibe. di ci ndigal di wéy ci ndigal. loolu rek moo ci li ci am solo. nii ma ko waxee sunu sunu waxtaanu biir la. nii ma ko waxtaanee nag sunu waxtaanu biir la. yóbbu ko nee na jamono nag moo demee ne moom lu waay wax ci ne bi nag des na ko yóbbu ci biti moom <laughs> muy du si dara jamono ji demee noonu <laughs> lépp de am na solo am na solo li am rek li am rek moom li am rek les fi li am rek les fi wax ku ci bokk xam nga sa bopp ku ci bokkul mu xam ne loolu loolu rek la nekk mu xam ne nun ci loolu rek la ne <laughs> oh. waaw waaw doole ji sëriñ bi am nag doole ji sëriñ bi am nag dee su ko tuddee doole barke rek la dee su ko tuddee doole barke rek ndax ci ngërëmal yàlla la jógee kon nag dafa niroog nguur waaye bokkul waaye nee na bokkuñu dara. nguur gi am na nu ñuy doxee. nguur am na nu muy doxee. sañ nañ ko. sañ nañ ko. ñun nag ñun nag dafa am na muy doxe noo xam ne noo xam ne. sañu nu leneen sañu nu leneen. loolu nag nañ ko xam. nan ko xam ci nun nan ko xam ci nun ñun seq bokkal réew mi. ñun réew mi. nañ ko xam ci loolu nañ ko xam ci nun noo xamee noonu la ñuy doxee. xam ne nun hmm, xam ne nun moom nun tëllunoo yàq. nun tëllunoo yàq. maanaam tëllunu lu dul yàlla. tëllunu lu yàlla. ci loolu rek la nekk ci loolu rek la ne. waaye nag alhamdulilah. waaye nag alhamdulilah loolu jigadiwunu. loolu jigadiwunu de. <laughs> ànd ak Serigne Touba ci ni mu ko bëggee. ànd ak Serigne Touba ci ni ko bëggee. Hmm? jigadiwunu de. ñu génn woon de kon nag ñi jëkkoon ànd ak sëñ Touba kon nag ñi jëkkoon ànd ak sëñ Touba buñ jombale lañ am buñ ko jombale suñu bopp lañ am buñ ko jombale suñu bopp ñu àndoon ak sëriñ bi lañ am buñ ko jombale suñu bopp buñ ko jombale suñu waaye nag nanu seen jaar ci seen i tànk waaye nag dañ jaar ci seen i tànk nag topp leen ci biir ak ci biti noonu rek la demee noonu rek la demee ñu ngi leen di sant nag. ñu ngi leen di sant nag bu baax. ni ma ko waxee woon rek. la ngeen nekkoon. la ngeen nekkoon. ba agsi fii ba agsi fii. loola cant rek ci war. ci war. waaye na ngeen xam ne nag. na ngeen xam ne nag. loolu lépp. loolu lépp. waajtaay la rek la rek nag. bu ngeen bu ngeen bu ngeen doon waaj. bu ngeen waaye kon agsi ngeen ci. agsi ngeen ci. li ngeen li ñu leen di liggéeyloo agsi ngeen ci. Mhm. lay ko jiitu lépp nag waajtaay rek. loolu lépp nag. dogalu yàlla ci yéen yàllaa ko ci yéen. dogalu yàlla yàllaa ko dogal yàlla ci yéen yàllaa ko dogal ci yéen. waaye da ngeen xam ne li ngeen weesu moom. am njàng ak waajtaay la woon rek. kon nag liggéey bi agsi na. na ngeen góorgóorlu bu baax a baax. na ngeen góorgóorlu bu baax. kenn ku ne nga sàkk ngërëmul sëñ bi rek. muy ngërëmal yàlla. jërë ngeen jëf.